برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان سما قلبي بالله billaay bàyyi lu dul baay maamur cey baay maamur jaaraama yawaa Cheikh Maamur Jóob am nga ngërëm billaayi baay am nga ngërëma jaaraama baay maamur aysa billaayi yow am nga ngërëma am nga ngërëmal ñaari way jur am ngërëmal baraama ñaas ku am ngërëmal baraama ñaas billaay yow fokk nga rawaa maam Abdoulaye yaay suñu gaal mbootam sa tur teer Sénégal lii moo waral tey Sénégal ay Abdu toog doon sa misaal gaal gaa ngi daw ca alxayeen wal yotte jilim bi aw yonen demal nga seeti alxuraan daa xam ne Baay Ñas sama xol bi billaay bàyyi ci nekk waaw waaw. relation Mérina ak Nigéria dafa yàgg depuis cinq la depuis boobu ba léegi ñoom seen tànk musul dagg ci Kaolack waxtu wu nekk ñu ngi euh, tamit suñ tànk dinañuy dem ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi goo xam ne nag sukkandikuwaayam mooy gëm yàlla. Moy bëgg bëgg yalla moy nangul yalla ci lim ñu sant ci téeréem jaarale ko ci yonent yalla Muhammad Cheikh Ibrahima taxawayam ci àddinaam yëpp moy liggéey liggéeyal yalla ci jami yalla yi liggéeyal yalla ci jami yalla mi nak amut place fu jami yalla nek rek boko fa mëne yob nga ndax yonent loolu la ko yàlla wax wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas ci nit ñëpp laa la yónni te yonent génnul Medina donc ba ñi nga xam ne ñëw nañ place am yëpp te xam lan moo doon mission yonent mooy ku ko fu ko waay mën a àggale rek na ko fa àggale bu mu yem ci dëkkam bu mu yem ci ay nitam ndax mbiru yàlla la jëm ci jaamoon yi ku yàlla sant jox la pouvoir nga mën ko toxal waraloo ko amal place moo tax Cheikh Ibrahima ñëw na fi euh, ay sëriñ yu bëri nañ ko Sénégal liggéey nañ liggéey kawe yoo xam ne ñoom seen bopp seen liggéey doy na royukaay seen liggéey itam jar naa génne wane ji ko ci biti Cheikh Ibrahima dem na wane ji taxawaayam ci diine Sénégal taxawaayam ci xam-xam Sénégal taxawaayam ci góorgóorlu ci tabax doomu aadama ba mu nekk nit ki nga xam ne moom la yàlla bëgg bañ bañ demee gis ne nii la Sénégal mel ci diine nii la Sénégal mel ci ay xam-xam donc bon amul dara lu ñu war a jaar suñ diggante ak ñoom ñu bañ a ànd ñu bañ a ànd dimbalante ci loolu nga xam ne mission jullit bu nekk la ndax jullit yàlla nee na asamaan attanu ma suuf attanu ma mais xolu jàmbu set attan na ma xolu jàmbu set boobu moom la Cheikh Mate Tidiane di utal jaam yi moo tax mu. indi tariqa boo xam ne waxtu wu nekk nit dafay taqoo ak loo xam ne waxtu wu nekk dafay setal xolam astaghfirullah allahuma salli ala sayyidina muhammad la ilaha illallah mooy saabu bi nga xam ne dafay fóot sa xol bu bu bu setee rek yàlla wàcc ci yàlla wàcc ci mooy mooy tariqa tiyaan foo dem ci àddina bi rek àddina bi yëpp foo dem di nga fa fekk liggéeyu Cheikh Ibrahima ci lislaam da nga fa fekk liggéeyu Cheikh Ibrahima ci tariqa tiyaan waaye di nga ko fekk Cheikh Wade tamit ci taxawaayam comme koo xam ne moom tamit am na lu présenté loo xam ne mën na koo jox nit ñi te bi ko joxee nit ñi te nit ñi nangu nañ ko euh, mos nañ ko neex na ak ñoom moo tax boobu ba léegi seen relation ak Marina mënul dagg waxtu wu nekk rek ñu ngi ñëw pour jël si euh, loolu nga xam ne gis nañ ko ci Cheikh ci ci biir dundu Cheikh Wade ma euh, waxtu wu nekk dañuy ñëw dañuy ñëw Marina après bu Cheikh Wade ma demee. ñoom dañoo bëgg ñoom tamit am benn cër boo xam ne dañ koy am Cheikh Ibrahima mooy ñu may leen ñu di ko feetoo ak mu jot ñoom tamit ah, di ko feetoo at mu jot ndax dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima defal na leen ci ci ci ubbi ci xam ci dooleeku defar na seen diggante ak ñëpp ah, ndax ñëpp lañ jokkoon ci àddina bi yëpp lañ jokkoon ah Nigéria Ghana Mauritanie foo def rek da nga fekk ni mu ñaa ngi jàppante te doo fekk yàlla li nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima taxawoon di ëpp jëmee ci moom otu ne jëmee ci moom jëmee ci yàlla nit ñi dégg nañu wooteem ñu dégg olof ak ñu déggul olof xam nañ li muy wax ah, euh, ñu déggul ñu xam nañ li muy wax ñëpp parce que boo nekkalee yàlla bu dëggu yàlla mooy jottal sa wax yàlla mooy jottali hmm? ñëpp koy dégg boo waxee olof ñëpp koy dégg boo waxee arab koy dégg ndax euh, du moom yàlla mi nga xam ne jébbal na ko boppam yàlla wax na ci yonent yàlla Muhammad jot nañu ko yow sama jaam boo ma nekkalee li ma war a nekkalee ma mujj nekk sa loxo nekk sa làmmiñ nekk sa bët te boo ma waxee ma def ah Cheikh Ibrahima dëgg-dëgg ku nekk xam na ne àgg na ci ci ci set ak setal loo xam ne àdduna bi yëpp nangu nañ àdduna bi yëpp nangu nañ ko ci ci xam-xam nit bu am xam-xam géej xam-xam barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan